xool boo liggéey wii mu rek dimbali ma rek bu sax xaar na jëlal sa borom sa kër la su ñu koy fekk yàlla dañuy tëjal sa rajo Thank you. fi nga xam ne moom mooy hémicycle euh, bi. Euh, chers internautes de Dakar Buzz TV vous êtes en direct fii ci assemblée nationale euh, ci suba léegi gis nañu li nga xam ne moo fi jot a xew muy rek tey jii installation wala tabb. Euh, président bu assemblée nationale ci suba ak léegi nag loolee mujjeewu la antu euh, ci jamono ji ñuy wax ak yéen présidente séance bi la ma waxoon rek mooy ku nekk na dellu ci place am gis nañu sànq euh, le maire de Dakar jël micro bi jëlaat micro bi nga xam ne moom la doon waxee Barth mi ngi noonu di dugg si gendarme yi nag daal dinañuy ñëw mu ngi noonu di xottate affaire yi mi ngi noonu di xottate li nga xam ne moom mooy kayit yi ñu teg ci kanamu. Euh, euh, euh, président bu séance bi mi ngi noonu poqati na micro yëpp sànni ci suuf yëpp micro yëpp daal dina koy jël sànni ko ci suuf moom Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru gendarme yaa ngi noonu accrochage diggante député yu bees yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie mi poqati na micro yi xotti na kayit yi gendarme yaa ngi noonu Abbas mi ngi noonu moom tamit di yuuxu à haute voix Birame jël loxo yi yéegal ko ci kaw maanaam pour wane ne Euh, deful euh, euh, dara yeneen député yi tamit la même chose loolu la ñuy def yu jigéen yi comme yu góor yi Barthélémy Dias mi ngi fee Babacar Mbengue honorable député Babacar mbeng maire bu Yaraax di waxtaan ak moom gi rek mu revenir à la raison waaye lu ci mënti am daal gendarme yaa ngi ne ñëw nañu nag en grand nombre ngir defaraat salle bi li nga xam ne moom nekk mu def nga sànni na Barthélémy Dias sànni na li nga xam ne moom mooy ordinateur lañ ko mën a tuddee mi ngi noonu di xataraayu Barth mi ngi noonu di xataraayu le maire de Dakar Barthélémy Diaz honorable député Abbas a ngi foofu moom it di ko feelu chers internautes de Dakar Buzz TV yéen ñi nga xam ne ànd nga ak ñun euh, ci suba ak léegi ci direct bi fii ci assemblée nationale euh, tey nag li ko waral euh, moom mooy installation assemblée nationale wala tamit président ki nar a jiite Guy Marius Sagna ngi noonu ca kaw Guy Marius Sagna mi ngi noonu ça risque de dégénérer Guy yéeg na ci kaw euh, table bi baax Barthélémy Dias ma nga fa nga xam ne présidente séance bi euh, foofu la nekkoon dañu fa nekkoon yëpp nag daal nañ ko dindi mu doon euh, situation boo xam ne it bu ñu ko mosee gis assemblée nationale boobu ak léegi yàgg na mosuñu gis lii waaye lu ci mun mënti am daal ñuy wax moom pëcc xoola fii ci assemblée nationale ni ñuy waxee foo sànni mbaatu mu tàgg gis nañu sànq ñu ne ab député boo xam ne dafa ñëw te nekku député mu yàggee fi lool ba gendarmerie sax mu jee ko teg loxo daal di koy yóbbu ci biti ci jamono ji nag li ñu mën a wax daal moom mooy ndax yëf yi dana mën a ci am ndax nañu continuer vote bi lu ci mënti am moom mooy gis nañu euh, gendarmerie ñëw na ñu ngi gën a ñëw renfort baa ngi gën a ñëw renfort mi ngi gën a ñëw parce que sànq gisoon nañu le colonel euh, Daouda Diop nga xam ne moom mooy seen njiit le gouverneur euh, du palais euh, ci kaw baax dund na lunette yi ñu ko naan yow danga nga da nga réew kon commencé nañu waxante ñoom ak ñi nga xam ne dañoo ñëw nekk ay militants ñu ànd ak waa APR ñu ngeen di séenee noonu ci box bi ñu commencé sànnante ay kàddu. lan moo nar xew fii ci biir assemblée nationale ban euh, jéego la ñu ci nar a jël ndax lu mel ni tey dal na xel euh, ci assemblée nationale bi nga xam ne ñoom la ñu fal muy quatorzième législature tey ñu waxoon def rek li nga xam ni moom mooy installation waaye tabit euh, président bu assemblée nationale maa ngi leen di wax sànq la ñetti nit ñoom ñoo rek wax li nga xam ne ñoom ñooy bëgg présidence bi. ku ci mel ni Barthélémy Dias moom moo ngeen di seen ku ci mel ni Lamine Thiam bu parti démocratique euh, sénégalais ku ci mel ni Ahmed Aïdara ak euh, benn bokk yaakaar ka nga xam ne euh, daal dina koy rek tànn ngir teg ko ci boobule chaise bu assemblée nationale. chers internautes li leen mën a wax rek jamono ji daal mooy assemblée nationale jaxasoo na député yi ngeen gis nag ñu toog ñoom ñooy député benn bokk yaakaar ku ci nekk rek. Ah, même bu dee yaa ngi wax sax yaa ngi toog ci euh, chaise bi nga xam ne euh, fa nga toogoon ci suba ak léegi bouché wuñ ci waaye ñee ngeen seen ñëpp ñoom ñu daal di takkaa seen ay écharpe moom mooy euh, député yi nga xam ne fal nañ leen ñaari weer ak léegi ngir ñu représenter population bi. voilà internet Dakar Buzz TV ñu fàttali leen rek tey ñu ngi fii ci assemblée nationale bu au Sénégal ngir euh, daal di rek euh, euh, li nga xam ne moom mooy quatorzième législature bi ñu gis sànq rek ki nga xam ne nag moom mooy Abdou Mbacké Bara ba mu ñëwee. évoqué na euh, euh, ci article boobu nga xam ne bokk na ci euh, code bu assemblée national ne ñi nga xam ne dañoo yor ay ndomboy tànk ministre ak lu nu mel ñooñee yoon waru leen a bàyyi sax ñu toog ci assemblée nationale ndax amuñu fa seen place ñooñee dañu war rek daal di génn ñu gis nag ak léegi yëf yi daal di bloqué bu baax a baax yëf yi nag dafa gën a dégénéré ndax gendarme yi gis nañu ba ñu jaaxle ba jaaxle ñoom la ñu daal di woo ngir ñu ñëw bu ko defee lépp daal di euh, dellu siwaat Barthélémy Dias moom micro yi fi nekkoon sànq jël na ko ñaar yoon mais euh, leneen li ci des mooy dafa mujjee waddal sax li nga xam ne euh, moom moo tegu woon foofule jamono ji nag gis ngeen ko noonee ki moom ma nga tekki ay takkaayam ndax dafa am lu muy waaj muy benn honorable député bu jigéen ko ñu taaxilu ndaxte euh, euh, gendarme mu ngi jéem a négocier ak monsieur le maire de Dakar di ko ne euh, ku mu wàcc ñëw mu opposé en ñett catégorique gis nañu fu mu taxawoon mi ngi noonu ñu ngi noonu di leen wàccee ci perchoir bi Abbas a ngi noonu moom it di wàcc Biram Souley topp ci seen ginnaaw daal takk nañu seen ay euh, écharpe nekk ci biir euh, salle bu plénière bi euh, salle bi nag ñuy wax ne nag salle député yi la waaye lépp loo xam ne itam dañu koy voté muy loi budget fii lañu koy defee ñu nekk ci biir Guy Marius Sagna sànq dafa taxaw ci taabul bi ñee dagg micro